xamuñ ko amul benn journaliste boo xam ne xaw na ne la naa paj géej man maa jëloon sama décision ne danaa paj géej pour dimbali maam askan bi Sénégal ñu dem ko waaye comme jur na di coow yi leen nii coow bu mel nii gars yi di coow di coow yaa ngi dégg kon tey événement bi dañ koy reporté dañ koy reporté ci biir loolu tamit gis nañ ci tey ñu bëri ñoo xam ne ñu si ciy profité te bëgg si amaale occasion ñoo xam ne amuñ def amuñ programme seen cale ku si mel ni tey boo xoolee ay programme yoo xam ne yi bëri si biir weer bii ni maanaam ay faux information créé nañ ko si nee nañ Kounkandé daw na yéeg na si biir gaal bi dem di créé ay sos te am na yëpp xam na ne maa ngi suma garab tey suma joxoon di jàngale di jàngale xam indi wax nañ ay yeneen faux information naan kunkande ya? këram géej gi par force la boo ko deful dañ ko war a arrêté loolu ay karam faale la maanaam ay faux information la xam ne wérul ma ñëwaat tey am ya. hmm. na tam benn journaliste ma gis boo xam ne amut lu mu def amul programme mu bind mooy kunkande dafa am aéroport ñu téye ko te man maa kat yi am jàmm ñu ma war a jégganteel ñi nga xam ne xam nañ man man maay xam ñi nga xam ne yàlla boole na ma am ay kilifa ma leen wan résultat ñu koy gis ñooñu xam nañ man may kan waaye tey natt naa Sénégal xool ba xam ne Sénégal ña ko tey ay borom xel ñëw